yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarxiiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zaa'iran abadan mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi ahlan wa sahlan wa tarxiban bila adadi laa zilta dayfan kariman zairan abadan mukarraman bi qirat taahaati wa sadadi di wax alhamdulilah di sant suñu borom moom mi nu may fekke ak tal ak man ci bis bu màgg bii ci yoonu murit ba nag tey dara waxul lu dongab Sëñ Tuubaa bi képp màggal gi war naa cee ñëw ci ñaar war naa cee ñëw ci donk Sëñ Tuubaa bu wér war naa ci ñëw ci mbokk ndax soxna maam say mii mooy fa seet si tey soxna Seydou bu jaxate muñ ko tuddee ndey Seydou bu jaxate fàtte aw ball mbakki la tudd bokk ak ball ndey ak baay Cheikh aw ball mooy baay soxna ndey mii yaay maam say Cheikh Balla moo jur maam Thierno moo tuddee mu boppam. yor sama ndey tey. loolu yëpp mbokk gu neex la. waaye taalibe bi sëñ tubaab bi moo ñëw tey. laaj bi nga ma laaj nag dinaa ci sawar a tontu. ndax dama ne màggal yi bu ñuy màggal. nañu seet ka ñuy màggal la mu def ba tax ñu koy màggal. nu roy ko. fonk alxuraan a ko may. ñëpp xamal nañ bëgg ci dëkkam bii di euh, loolu sëñ sooy bi mu sàmbi ko ba léegi ci loolu la nekk ndax daara ji mu samp fii ñi fa jàng bari na lool ci la waxee wàjjal bi naa yaa bi naa ilmin waa amalil bi sunnatin wa defal ma sama dëkk tubaab bi muy dëkkub jàngukaay jubbantukaay ak mottalukaay bayit boobu ci la sëñ sooy sëñ sooy bi sampan àddina ma ci la samp daara ji tey te daara jaa ngi dem te yaakaar naa daara ji ginnaaw bu ñu fi jógee sax daa mel daara ji daa gën a màgg. Mhm. université bi ñu wax tey jii nii moo ko fi njëkk xalaat loolu lépp ànd ak bayit boobu ma wax mu dolli ci bind benn téere ndax loo bañ mu fiy jóge dangay def lu ko fi dul jële mooy bind téere téere mooy waratul xay nii tey lépp lu ñu bëgg jàng ci wàllu diine sama maas ñoo am seen jàngu soriwul li ñu bëgg xam seen diine ak li ñu bëgg xam seen àddina mu ngi ci uratul ay ni boobu wax ci dolli suñu borom jox jox ko njaboot goo xam si ma ngay wéyale la mu fi nekk woon kooku ko ko jiitee di sëriñ Cheikh Say bàyyi maam Say mii mu tudde ndeyam teg ci sëñ Abdou Samad sëñ Abdou Laat ak sëñ Abdou Laat mu mag ma ak sëñ Fallu ñoom ñu ñëpp koo ci gis tey ci jikko ak doxaliin day mel ni gis nga sëñ Sow sëñ sooy moo doon sëñ Touba loolu lépp li ci jàng mooy sëñ nekkul lu fiy jóge boo gisee kii baayam am dara ji mu ko ko def moo ko moo ko jàngal yar ko jël doomu toog ba na lekkal ci awal ci kenn sëñ ni mu ko dimbalee dimbalee ko sëñ sooy bi sëñ Touba da leen won boppam te sëñ Touba ku won boppam nga doonub dongaam te ko doonub dongaam sa lépp yombul donc lii bu amee ci réew mi ñu du ko màggal kuy dem lii nga war a yóbbaale ci moom ndax sëñ sëñ bi jàngukaayu àdduna la jàngukaayu ëllëg la donc loolu moom la war a wut ci màggal gi man donc tey bu ñuy wax mën naa wax ne ñett indi na ma fi mbokk mi ñëw na doggab sëñ tubaab bi ñëw na waaye ñaan suñu borom mu teg ma ci yoon sëñ yoon wi sëñ sëñ bi wone waaw loolu daal di woon moom bu wax mënta ñàkk loolu laay wax yam fii di nuyu maam say di ko sant di nuyu sama di ko sant di nuyu sëñ Cheikh say mi fi sëñ son bu tey teg ci rakkam yëpp di nuyu sëñ Muntaxa mi fi muy sëñ Tuubaa te mat ko sëkk xam nga tubaab def nii légalité légalité mooy lu war a nekk waaye légalité am na lu ko féete ko mooy légitimité mooy war a nekk sëñ ab sëñ Muntaxa war naa nekk sëñ Tuubaa waaye mat nam sëñ Tuubaa sëkk ndax ba mu taxawee ba léegi loolu dong lay def waaw donc maa ngi nuyu waa dëkk bépp di siyaar ñëpp di leen biral ni maam Thierno moom àll sëñ Tuubaa dong la lu dul sëñ Tuubaa ñor ko lu dul sëñ Tuubaa bugg ko lu ko nar a jaxal tax tàggaleeg sëñ Tuubaa nag moon ko ginnaaw ñoo ngi leen sant bu baax a baax a baax yéen itam ku mat a sant ngeen ndax li ñuy wax nii yaakaar naa lu am solo la te bu ko génnee maanaam am nañu ko déglu xëy na ñu yokk ñu am ñu am ci yokkute jërë ngeen jëf. jërëjëf kon euh, mbokk yi euh, mu doonoon kàddu yi nga xamante ni jóge na ci euh, maam Thierno Dieng di monsieur le ministre. rajo yi ak mboolem site internet yi ñëw fii Touba kër soxna maam say Mbacke Belel su ngeen ñëwee décoration bi comme dañoo nekk à rajo ñii ne ci télévision bi télé bi day jël décoration bi rajo bi ñu expliqué leen ni leen maam say baasam bii macha allah Sénégal baas la defee baas jël baas bi climatisé ko ndax ku ne xamee Touba. tàngoor wi degré mi ngi à 47 degré tàng na lool waaye boo duggee ci baasu soxna mam sey bii xam ne nag wax dëgg yàlla waajal na bisu maam bi mhm. waaw décoration macha allah fi ne dañuy waaj a lan la nappi yi macha allah lépp luy xeetu xewlu yoo xamante nit ki mën na xew loo këram bu ñëwee fii ci baasu soxna maam say belel bi dina ko fekk kon nag ñuy xamal nit ñi ni leen ñoo ngi nii fii ci kër soxna maam sey Mbacke moom Serigne Cheikh Ahmadou Mbacke bu muy màggal bisub maamam ndax sëriñ Suhaybu bu nag ko xamoon ku ne xamoon ko ci baynal fardi wa sunnani moom ci loolu rek la nekkoon ci jàng ak jàngale bañ nañ ko ba euh, ñu bari fi ñu nii ci weeru koor wi li nuy naafila sëriñ Suhaybu bu Mbakke la xaadim rasul moo bindoon téeréem boobu teg ko fi nga xamante ni bariwaat na lu mu ci def loo xamante tey jii mën naa ni àdduna jullit gépp téere sëriñ Suhaybu bu la ñuy dundee kon nag bu ngeen ñëwee fii ci kër soxna maam say Mbakke moom sëriñ seex say son yi bu ngeen ñëw dañ leen wax li nga xamante ni moom la fi nekke te moom lay defale maam say nit ku baax la waaye maam say noonu la mën a mel ndax léegi bi ngeen dugg ngeen dajeek way juru mu jigéen ñu koy wax soxna Ndey Mbàkke ñu tuddee ko woy juru sëriñ seex aw bal la ñu gën koo xam ci soxna maam aw Mbàkke muy doomi sëriñ seex aw bal la mum borom daarul muxti mbokkum ndeyum sëriñ Modou aw bal la ak soxna faati awa balla ndax soxna faati awa balla tamit nanu xam ni moo jur Serigne Cheikh moo jur way juru Serigne Cheikh say muy soxna say jaxate mi jur Serigne Cheikh say kon maam say belel paaka ñaari boor la boroon jaan ku mat yërëm naa la ndax kenn du la maam say boroon jaan ñaari bopp la kon bu ñëwee fii magalaat kon maam say daaru la bokk maam say kër Serigne Soye bu la bokk waaye ñu ëlbatiku nag jox ko a jàmbaari Cheikh Abdoulaye Serigne Abo moom Serigne Sidi Mbakke moom Cheikh Abdoulaat kon maam say ku ko gën ku ko yor amul ci réew mi waaye ku ko gën fu mu juddoo amul ci réew mi ñëw na fi nag ak ay mbokkam ak ay xaritam ak ay taalibe yi nga xam te ne yaakaar nañ Serigne Abo moom Serigne Sidi Cheikh Abdoulaat ñëpp a ngi fi wóllare yi jóge nañ fu ne kër gi macha allah koñ bi daal yeeg fépp niñ ñaa ngi fi ndax bu ngeen gisee base bi xam ni am na lu mu maam say daal li leen mën a wax mooy zéro faute lu baax la bëgg mi ngi ci. tubaab nag dafa am benn proverbe bu mu wax dani ne considérez pas une personne à ce qu'il mais regarde ce qu'il a fait ku fi ñëw na xam ni def na ko moom nekku fi rek naan sërib sëriñ soñ bu laa dama bëgg wax da koo jëf ñu gis wasalaatu wasalaam ala rasulillah naaw bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam di nuyu sit bi muy 24 actu euh, mu nekk site bu am importance boo xam ne mi ngi bay waaram ci département Mbacké di liggéey liggéey bu am solo te mooy informer doomu aadama yi loolu dañ leen di ñaanal balaa daray xew yàlla may leen kàttan ak wér ba fi ñu bëgg a àggale sut bi dem ba mu nekk ay télévision yu bari ci biir réew mi ak ay rajo yu bari euh, bis bi nag dañ ci teew mu nekk euh, bis boo xam ne euh, bisu la boo xam ne dañ ciy fàttaliku comme ni ñu ko waxee màggalu Serigne yi bu Mbacké Serigne yi bu mën naa ne am na ñu bëri ñu ko xàmmee am na ñu bëri ci génération mujj bi xamuñu ko ndax doomu Serigne Touba la nekkoon koo xamante ni bii borom xam-xam la nekk koo xam ne taalif na ay téere yu am solo téere bi ci gën a am solo bokk na ci xuratul euh, ayni tey fi ne boo doon xool dëkk bi yëpp tey ku naafile ci juma ba pare li ngay njëkk a wax mooy ana naafile sañ son bu bi mu def ci premier jour ba 30 jours bis bu nekk naafile yi nga xam ne war nga ko mën a def après boo defee say nawaafil ba pare balaa ngay def say safa mu nekk ay tiyaabo yoo xamante ni bi suñ borom dana la ci bindal loo xam ne ëllëg boo faatoo di nga gis sa bàmmeel loo xam ne dina kawe sa njort ñu koy ñaanal yàlla eh, yàlla taas ñu ci barke moom sëriñ Souhaïbou xëy na fekk nañ ko fii daanañ ko gis donte bariwul eh, waaye xam-xam moo ko yitteeloon yàlla kese moo ko yitteeloon ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam eh, nekkoon koo xam ne sunna la daan dund sëriñ Souhaïbou bu nekk koo xam ne it kenn la ci ci doomu sëriñ tubaay ci ni mu jàppe woon alquranul karim ni mu jàppe woon sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam def ci nag liggéey bu rëy gis nga daara yi mu ubbi woon taalibe yi daan jàng foofu alxuraan ba mokkal bind ay kaamil wëlbatiku jàng xam-xam ba jeexal xalil awal ak saani wëlbatiku mu tarbiya leen liggéey boobu mu jot a def ca Touba yàlla nañu ko yàlla fayal soxna si nag moom dañ koy sant di ko gërëm di wax ne euh, liñ naan euh, doom la waaye di ci sëñ son sëñ Cheikh Say mais dañ koy ñaanal ñaan gi ñu koy ñaanal mooy mu bokk ci euh, sër yi nga xam ne moom la Serigne Touba di wax naan wahab la naa tuddimu alhamala mu yaa xaddim Serigne Touba moo ne woon maa ngi ñaan ëllëg yàlla maye ma ay sët sët yoo xam ne lu ma bëggoon la ñu bëgg lu ma bañ la ñuy bañ taxawuma ci dëkk bi te soxna maam say taxawaay boobu rek la am eh, sëñ Touba waxaan ne suriyatan tayyiba tu jaddiju naaja nabil Mustafa tej tahit sët yu baax sët yu teew sër yoo xam ne yu farlu la ñuy doon gis nañ soxna si mi ngi yëngu ci wàllu développement mi ngi yëngu ci wàllu social di yëngu ci wàllu dimbale di jàppale te damay wax ne li muy def nii mi ngi koy defal xalif général de Mouride mi ngi koy defal président de la république kon liggéey bii muy def liggéeyu état la ak liggéeyu xalif général de Mouride kon soxna maam say dañ koy sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla ci yéene ji mu am ak liggéey bi mu bëgg pour liggéeyal ko maamam ci dëkk bi yàlla na ko yàlla may tey buñ ko dénkoon lépp wala doole jàpp naa ne tey Touba kenn du xiif kenn du mar kenn du sonn. tax ci loolu lay yëngu ci wàllu développement ak social ak dimbale ñi nga xamante ne bi tey dañoo sonn te fu ne mi ngi fay dem activité bu ne mi ngi koy def nag ci dëkk bi xëy na ñi ngi koy gis waaye lu bari du ñu gis ñun mais gis nañ ne mi ngi wàcc sur le terrain di dem ci quartier périphérie di seete ñi nga xamante ne bi tey dañoo sonn dañoo manqué euh, lu mel ni amuñu ndox wala amuñu euh, lu ñu lekk wala lu ñu dundee muy jël ci li mu am di leen ci dimbale moo waral tey jataay bi gis nga ne mboolem ku nekk ci Touba di yëngu ci wàllu métier journalisme yaa ngi fii ci jataay bi ngir lan relation bi nga am ak moom képp koo xam ne yaa ngi nekk jeune di yëngu ci politique tey yaa ngi ci jataay bi képp koo xam ne yaa ngi ci dëkk bi di yëngu ci wàllu diine islam te Touba ñor la yaa ngi ci jataay bi ngir lan mbaaxam ak yaatoom ak yitte bu mu am kon yàlla nañu ko yàlla fayal. waaw jërëjëf euh, ginnaaw bu ñu leen nuyoo euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax euh, suñu relation ak soxna maam say relation frère et sœur la relation amitié la yàlla dafa dogal bu nekk sama jigéen nekk sama xarit également. Euh, su wootee bis bu mel nii euh, dañ koy ànd ak moom euh, ànd ak moom ba mu jeex loolu moo waral suñu teewaay fii. non xam nga li Sénégal gépp la am xam nga politique beneen affaire la bokkul ak relation amicale wala relation boo xamante ni sa diggante ak nit ki la sama diggante ak maam say li ñu boole du politique wax naa la ko sànq li ñu boole relation entre frère et sœur la relation xarit la. ndax euh, yàlla dañ yàlla daf ñu boole boole boo xamante ni boole bu sincère la euh, ba lépp lu muy def daf koy ànd ak man lépp lu muy dugg rek man dinaa ci am information dina may yëgal dina ci laaj sama xalaat donc bu amee bis bu mel nii euh, lii suñu devoir ñun mooy ñu bàyyi li ñu def lépp ñëw ànd ak moom. auzu billaahi mina seytaani rajiim alhamdulillahi rabbil aalamiin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ñu ngi sant yàlla bu baax si weeru koor gi ñëw gi ñu ñëwat fii. fekk fi soxna maam say si màggalu jëm ju tedd nitu yàlla ku baax ku ñuy wax Serigne Sohaybu bu Mbàkke ibnu xaadimal Moustapha xaadim rasoul maam say mi nga xam ne nag moo tax ñuy ñëw fi chaque année di partager ak moom cérémonie bi mu ñuy teral ci wàllu ndogu ak lépp ngir yàlla ak jëmmi Serigne Touba ak jëmmi Serigne Sohaybu bu maam say moomu dañu am moom ay relation yoo xam ne relation yu particulière mu nekk koo xam ne vraiment nit ku baax la surtout Serigne Touba la mais ensuite ñu bokk lu ñuy yëngu muy politique moo tax chaque année mu invité ñu ñu ñëw partager ak moom cérémonie bi ak màggal gi mais daal li am solo mooy euh, suñu relation ak moom daal mooy suñu jigéen la suñu mag la suñu xarit la waaye tamit suñu sëriñ la ndax euh, sëtu sëriñ Touba la waaye li ñu mën a seede ci moom daal mooy jigéen ju baax la ku mat la ci doxin ak waxin ak tamit euh, taxawaay bi nga xam ne am na ko ci jamono loolu daal moo tax chaque année ñu bàyyi suñu ndogu yëpp suñu kër ñëw fi ndogoo moom ànd ak moom bis bi ak cérémonie bi ñaanal Serigne yi bu Mbàkke yàlla na yàlla yokk leeram. soxna maam sëy bu yoon wi doon aw nag ku ko rey fay ko ndax ñaar ñi séq yoon wi génnu leen benn yoon muy Serigne Touba Khadim Rasoul ak maam Thierno Ibra Fati Serigne Cheikh Say muy waajuram wu góor muy Serigne Ahmadou Mbàkke Serigne Sonhibou bu Serigne Touba Khadim Rasoul soxna Ndey Mbàkke mi waajuram bu jigéen Serigne Cheikh Awa Balla maam Thierno Ibra waaye Serigne Cheikh Seye mi waajuram bu góor soxna say mi ko jur soxna Faati Awa Balla mi ko jur ak sëñ Cheikh Awa Balla mi jur soxna Ndeye Mbacke mi ko jur ñoo bokk ndey ak baay buñ dee wër bët bët bët Mbacke maam maam Seye la bu ahlu Mbacke gi jàllee kokki kër maamam soo fa ñaanee ñu may la soo fa tooñee ñu duma la waaye boo fa gàggee ci alxuraan ñu gàgganti la dama koy faral ni ko wax ne ko sëñ Tuubaa defal na sa maam loo xam ne bëriwul ñu mu ko defal sëriñ Tuubaa daa denc soxna Fa soxna Faati Madu maam am ci sëriñ Basiiru mi jur sëriñ Muntaxa mii di xalif général ku lu murit ginnaaw bi la ko jël moom sëñ waa jox ko sëñ Mirina Silla maam mi soxna maam say mii mu am ci ñaari doomi jigéen soxna Umul Silla ak soxna Sooda soxna Umul Silla moom lañ jox sëriñ Cheikh Awa Balla mu am soxna Ndey Mbàkke mi jur soxna maam say mii mbokk ndeyam soxna May ñooñu nag ah muy soxna ki nga xamante ni moom moo di ah, soxna soxna Fatima du maam mi maamam maam say saasum kër Ndumbe maama njëkk tuub ci ku sant Fall ñu jox ko maam Maxtaar Ndumbe moo am ci assa saasum Binta assa saasum màgg ñu jox ko Madu Ndaa Kanni càmmiñul isjee Ndaa Kanni moo am siir assa saasum Faalu assa saasum ak Ndaa Kanni assa saasum ndaag lañ jox sëñ ko maam Maxtaar Ndumbe moo am ci Madu maam soxna Fall mi ji soxna Faati Madu maam soxna Faati Madu maam moom la moo jur soxna umul si la mu jur soxna Ndey Mbàkke mi waajuru soxna maam say Mbàkke mi waaye kenn ku nekk xam na ni son soxna Ndeye Mbacke mi mi mi mi mi mi mi mi mi waajuram bu jigéen sëriñ Cheikh Awa Balla ko jur sëriñ Cheikh Awa Balla maam Thierno ko jur maam Thierno soxna Ami Mbacke soxna Faat Bind ñoo ñoo bokk ndey ak baay ñooñu soxna Faat Issa Diop la seen day tudd ko nga gis soxna maam say day demaat kokki soxna ak soxna Ndume Xari ñoo ñoo bokk ndey ak baay sëñ kokki njëg Issa Dieye la seen baay tudd daa toj ngërëng te njekk nekk naan ni waa kanko julli leen baamare leen gis ngeen jëmm jee ne li mu am ci yoon bu ko jëlee mu jeex waaye judd bi mu wax lépp baax na ab judd lu am solo la ci doomu aadama waaye jikko moo fi indi nit ñi moo moo moo fi man ngaa judd judd bu rafet waaye sa jikko yàqu ko waaye nag moom daa judd judd bu rafet waaye jikkoom yàqu ko maam say nit ku baax la xeebul kenn parce que lii mu def ni nit ñi amuñu temps surtout weeru koor cinquième jour koor gi nit ñi dañuy namoon ndogoo seen kër waaye bisam bi ñëpp la ñuy bàyyi seen bis yi ñëw fii te it attention xoolal ni ko maam jaral seen i sooy bu baas bii lu baasu 4000 euh, euh, euh, ngeen ko soo gisee bis bi mu fonk ko fonk maamam fonk fonk fonk ñu dénk ko nag mbokkam ndax kenn ku ne xam ne suñu ablaat ak suñu sooy boo bokk ndey ak baay suñu ablaat jël soxna suñuy wax soxna maa Asta Syll kër ma ñaaw sëñ Sidi Mbacke sëñ Sidi moo jur sëñ Abo mais toog niñ ko dénk kon moog borom këram këram la ñëw. tan noo ngi fii ci kër maam say Mbacke ci Madiana 6 te ku ne xam ne ni Cheikh Abdoulahat ak Serigne Chouaïbou ñoo bokk Seexul Xaddiim ak soxna Marema Jaxate soxna maam say Mbàkke di sëtub sëriñ Souhaïbou ndax jëmm jii di sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke di xalifab sëriñ bu mooy waajuram Mbàkke nuy ñaan yàlla yàggal ko fi te wéral ko xam ngeen ni tey jii noo ngi yendu ci màggaluk sëriñ bu gi ñuy fàttaliku sëriñ bu di fàttaliku alquran di fàttaliku julli di fàttaliku koor weer wii nu ne mu ganee ci jamono génn ci jamono nu yendu koo màggal ba ngoon jot mboolem gan ñi ñoom ñëpp ñëw waaye bu nu demee ba jeexal cérémonie bi waxtu ndogu bu jotee ñëpp dañuy ñëw ndogu si ak soxna maam say Mbàkke ñoom ak mboolem ñi nu àndal sëriñ Muntaxa Kane ngi nii toog moom it di jàmbaari sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général di Murit waaye bëgg maam say Mbàkke yëg ko lool ku ne xam na xataay bi waaye dafa ñëw fekke si li nga xam ne mooy bis bi Baye Birane Gaye nga ne ak mboolem département bi ñi mu ko bokkal ñëpp soxna maam say euh, yaakaar naa ni bi nga wootee woote nga balay sa waaye wuy si nga te jikko rek mooy wuy si kon dañ lay bàyyee kaddu gi bu ko defee bu noppee nag danañu jël kaddu gi jox ko sëñ ma madu Ndiaye mi nga xam ne mooy chef de cabinet bu premier ministre bu noppee itam des na ko jox moom madu saw kon bisimilah. man xaaral wax sax mën naa ko jël fil ba tax naa waaw ne damay baax di sant sëñ Mountakha kan mi. di sant euh, Modou Aïssa yaay mi ndax ñi ñëpp politique damaa boolu ta ñoom Mohamed Dione danoo bokk ndey ndax li bokk ndey mooy waalam yëpp ko Sëñ Basiru la bi waajuram dem ci kër sama maam yaay sama ndey bokk Sëñ Basiru benn ndey moom na ko boole loon Mohamed Dione jàpp na ma téye na ma sagal na ma suturaal na ma këram ni may duggee damay marché di la duggee këram di génn daanaka dam danaan sama maam say soñ bi la bokk mënu ma koo fay dugg gi mu andi gi mu andi ci parti bi rëccu moo ko sax suñu wax ko ko def na ma noo xam ne mii woon na suñu waa kawe na sama njott sax bëggul lu ma naqari bëggul leen lu ma metti la ko war suba ca ngoon ma ngi koy def yoon xaaratu màggal man koy def te dafa jafe jamono ji ndax booy ànd ak nit ki di def lu ne ngay dégg Mouhamed yoon dégg na lu nekk ci man te gëmu ko dégg na nekk ci man taxoon ma bàyyi ko kon man man mënu ma ko fay mënu ma koo fay dama koy bàyyal yàlla ak Serigne tuubaa ak sëñ Basiir min bokk ñun ñaan mu jàpp ma yal na ko sëñ Touba fayal boppam. teraanga ñu muy def ci man yal na ko yàlla ful aw fan mu gudd ak mu wér moo ko soxnaam ak ñëpp ñu bokkal néegam ndeyam bépp. di sant Mouhamed Sow mi mu bokkal ndey. Mamadou Sow dama koy wax ba rus koo woo sax Mouhamed Dione danaan ma la lépp loo soxla wax ko soo ma jot. nu ko bëgg na la koy defee. kon na man Mouhamed Dione man dama koy bàyyi yàlla ak sëñ mu fayal ma ko. danoo toog si mun taxaa mu ne ko kii dañuy jàppale doom si suñ mën taxaa ne ko sama jar baat la mu ne ma lii ma sëñ bi wax de dina tax ma gën a amul sëñ Basiiru ah, man Mouhamed Dione su may wax ci moom sax woon na sëñ Touba fi laay fanaan dama koy bàyyi yàlla ak sëñ Touba ak sëñ Basiiru ak Cheikh Mbacké Sow bu moo fay Mouhamed Dione jël ni fii sëñ Cheikh yóbbu hôtel fay ci ay millions te sëñ Touba doo nga te ku ko wax du li muy def ci kër sëñ kenn ko ci def lu lu ab Macky Sall am ci kër sëñ Sow bu rek ginnaaw yàlla moom la kon nag man dama koy bàyyi yàlla sëñ Touba di sant soxnaam bu baax di sant Mamadou Sow mi mu bokkal ndey mënuma leen dafay di sant sëñ Muntaxa Kan mi tamit nag ndax la mu def sama ni jaay ga doone sëkk ak barke sëñ Kan lépp lu mu baax li jox na ko sëñ Muntaxa lépp lu gën rek jox na ko sëñ Muntaxa mu jàpp ma sëñ Tuubaa jàpp ma sëñ Muntaxa ndax kat olof yaay boo boo reyee nit danaan yóbbul sa kër nga naa yóbbul sa kër baay te kër baay muy neex neex kër ko dàq ñoom ñii dañ maa jàpp sëñ Basiru ma bokk ak ñoom rek da mën ma jàppoon yaakaar naa demee nii mu demee kon nag sëñ mun it ma la gën a dolli sa cant ndax Mouhamed Ndione du laa woo ñu ne la sa mun mun mun taxaa jàppal sax na maam ndax ñoo bokk sëñ Basiiru jàppal ma ko noo ko jàpp jàppal loolu tamit nga koy def yow bëggoo leen lu ma naqar ci parti te parti bi dana naqariw ma ci ndax kii ndey mi président fi moo teg teg na ma fi Mouhamed Ndione mi fi ma teg teg na ma fi di sant tamit sama càmmi ñi dafa yaakaar suñu seex say bokk ak aali muy lépp seen baay am lu seqoon ak suñu seex mu jëbbul suñu seex benn bi saataan aali muy yaay mu ne ma sax na maam sa yow ñoo bokk baay moom dama koy sant di ko gërëm moom moom it li ko war ci man lépp mi ngi koy def boo naa la mun ay mun sax sama rakk ndax sa baay la yaakaar lépp loo soxla woon ma ne waxu ko man tam sama diggante aali mu yàqu ci lenn heure bu ma ko war ni ma ko bëgg na koy lijjantee ba teg ko sama loxo mu yónni fi délégué yónni aali mu def ci màggal ci war lépp def na ko ci moom it sonn lool yónni fi mu ay sa kasi seex la yendu tey jii ñu ñëwaat ni sama kër kon yow yaay ma laa fay dama lay bàyyi yàlla euh, Sëriñ Tuubaa am fayal ma la Mouhamed Dione lam defoon doy na ak baat lii kenn tëgg ko ko def na démb def barke démb defaat tey barke Serigne Touba man bi lii sax dafa sedd sama xol bunu maa wax Mamadou saw santal ma ko maa ngi koy ñaanal yàlla bàyyi ko fi bàyyi ko am may ko fan wu gudd bu wér yow mi fa nga bëgg àgg nga àgg fa santal ma soxnaam kati ak Cheikh Diop Dione ak waa Gossas ñëpp teg nañ ma foo xam ne daal wóor na Serigne Touba moom mënu maa fay si mu ndaxaan loolu yow laa koy yóbbante loolu moom yow laa koy yóbbante sant naa bu baax gërëm naa sant ñëpp jërë ngeen jëf waaw di sant soxna ma am xarit baax nag moom leen bokk bari na de boolewuñu san maam xari moom san maam xari moom li ma ko sant san moom bis bi moom démb rek danoo yendoo wax fii téléphone barke Sëriñ Bamba ba 3 heures du matin kon nag san maam xari moom ci kër gi la bokk moo ma jur ci côté yu nekk moom du ma ko sant lan def ci woon da ko war a moo ma jur waaw di sant ñëpp jërë ngeen jëf soxna si dafa am ñaar euh, day sama sëriñ ñaari yoon day sama sëriñ ci kër suñu soye bu di sama sëriñ ci kër suñu Basiru ndaxte maa la koy leeral ki jur yaayam ak sëñ Basiru yaay sëñ Muntaxa ñu bokk benn ndey mm-hmm. ñaareel ba ci des euh, premier ministre moo boole ak moom euh, premier ministre da ko jàppe sëriñ jàppe ko mbokk euh, jàppe ko gaynde ak parti bi mm-hmm. élection yii yii fi jóge wax na ci gémmiñam ni bu amoon juróom ñi mel ni moom comme Touba bu tëddee nelaw kon nag soxna si maa ngi lay sant di la gërëm ci turu premier ministre euh, di la sant tamit en tant que sa talibé euh, di la xamal ni si gën nga nu ñun askanu murit bépp ndaxte bu fekkee Macky am na fi benn naqar faj nga naqaroo kon nag ñoo ngi lay sant di la gërëm wax ji jërëjëf guddal sant nañ la bu baax président sant na la premier ministre sant na la yàlla la say waajur taxaw li nga bëgg li nga bëgg defal président Macky Sall ci dëkk bi lépp ànd jërëjëf